fonk moo waral mu raw mboolem jigéen te ku mu raw dootoo ko doon ne moo fi raw moo fonk laylatul xadar guddi gi mooy guddi gi gën may moona koy sang bi gën fonk li gën mooy tax a may na ko barke weeru koor ne moom ci barke weeru koor lay def laylatul xadar sant bu baax a baax. sant nag bu baax a baax. ñu ngi sant suñu sëriñ bi. nee sëriñ Mountakha Mbacké moom sëriñ Bachir nee ñu ngi sant suñu borom ñu boole sëriñ Touba. bi. nee di sant sëriñ bi. ci njabootam gu baax gu sell gii mu ñu bàyyeel. ci njabootam gu baax gu sell gii mu nee soxna si. di kenn ci ñoom. nee na di kenn ci njabootu Serigne Touba. di ko sell. nee di ko sell. di ko baax. di baax. moom nag. moom nag. dafa am. moom soxna may lu ko sëriñ bi jagleel nee ci guddi gi guddi gi nee guddi gi ki ko sàkk ki ko sàkk moo wax ni moo gën junni weer ki ko sàkk guddi gi moo wax ni guddi gi moo gën junni weer sëriñ bi itam nee sëriñ bi itam xel munta dab diggam ak boroomam xel munta dab diggante boroomam ak sëriñ bi loolu moo tax sëñ mu taxaa nee loolu moo tax sëriñ bi ay karaama yu bari la am sëriñ Tuubaa ay karaama yu bari moom la am yoo xam ne yi kenn munta lim yooyu karaama waaye am na solo si genn karaama la ci ay karaama. waaye dafa mel ne soxna May nag genn karaama la ci karaama yi Serigne Touba yi. karaama. Serigne bi ne karaama. xëy na neexu la dégg sax. xëy na neexu te dégg sax. waaye dafa mel ne. waaye dafa mel ne. day teraanga goo xam ne. dafa mel ne teraanga la goo xam ni. day jagle gu rëy. day jagle gu rëy. kon nag loolu moo tax. Serigne Mountakha ne kon loolu moo tax. soxna si di boroomu jagle. soxna May mu tudd Xaadimal Mustafa di boroomu jagle. guddi gi ku di jullit ku ne sëriñ bi ne guddi gii nag tey ku di jullit ku ne rëy na ci yow rëy guddi gi rëy na ci yow lool waaye fii mu àgg sonn si waaye fii guddi gi yegg soxna may nag ku ko xam ku xam guddi gi da nga xam ne soxna si rek da nga xam ne soxna si rek mu àgg fa mu ko àggale mooy yeggale guddi gi fa mu yeggale guddi gi li lislaam di yaatu yaatu sëriñ bi ne li lislaam di yaatu yaatu yaatu li muy di rëy rëy li mbooloom di bari bari bari li mbooloom di bari bari guddi gii ci wàllu si fi guddi gii wax ni eggu fa kenn mais naa wax ni yëggu fa kenn kon looloo tax sëriñ bi bi ne kon looloo tax bi diggam ak borom xel mënu ko dab diggam ak borom mom xel mënu ko dab motax karama karaamaam yu bari yi moo tax karaama bamba yu bari yi mu jël ci genn mu jël ci genn karama daf ko muy soxna may daf karama mo ngi soxna may moom non rek la ko gisee sëriñ muntaxa mbakke neena mom non rek la ko gisse de bu ñu xasee ne sell nag sëriñ bi ne bu ñu xisee ni sell nag. wàllu sunu borom yépp dugg na. wàllu sunu borom yépp dugg na. soxna si ku sell la. mais soxna May ku sell la. waaye ku mat la. waaye it soxna May ku ku mat la. bu ñu xisee wax mat nag. bu ñu xisee wax mat nag. dara lu dara lu baax. soxna si dafa sell. mais soxna may biccu xaadimal Moustapha dafa sell. mat sëkk. mais mat sëkk. Euh, melal yi sax mëneesu koo lim. mais melal yi sax moom nag mëneesu koo lim. waaye mëneesu ko tënk rek. mais sëñ Mamadou Niang. xasida gii mu ko defal. mais xasida gii mu ko defal. dama see gis mu melal ko melal ko soxna Fatima. daf koo gis mu melal ko soxna Fatima. bintu Rasul. soxna Fatima bintu Rasul. maa ko ñaan rek. waaye sëñ Modou Mamoun Niang sëñ bi ne mi ngi lay mu tegal la ci. mu jox ko melaw soxna melaw soxna Aïsatu. mu jox soxna si kon dafay daal di mel ne melo yu baax kat day daal di mel ne melo yu baax yëpp dugg na. bu yoree melaw soxna Fatima. bu yoree melaw soxna Fatima. sayyidatuna Fatima. sayyidatuna Fatima. te sell ga. te sell ga. yor melaw soxna sayyidatuna Aïcha. yor melaw ga. kon soxna si bayiwul ca ginnaaw. maa ngi jégalu. ne mi ngi jégalu nag. amoon na yéene mën a fanaan ci soxna may bintu xaadimal Mustafa waaye foofu rek laa ko yemale rek laa ko yemale jël si rek di leen xamal yéen bokk yi ndëg seen soxna may rek képp ku ku ku ku ku ku ku di képp ku di jullit sax képp koo xam ne da nga dëkk Sénégal képp koo xam ne da ngaa dëkk Sénégal képp koo xam ne da nga di taalibe képp koo xam ne kii da nga di taalibe boo xamee guddi gi fi boo xamee guddi gi fi mu toll soxna si. fu mu la mën na fekk. fu la mën a fekk. da nga bokk seeg moom mbégte mi. da nga bokk seeg moom mbégte mi. ndax kat man yaakaar naa ci eh, pay gu rëy rëy rëy. mais kat yaakaar na ci pay gu rëy rëy moom rek ci nekk. bu soxla si dee karaam ak sëriñ bi. mais bu soxla si dee karaam ak sëriñ bi jagle ko jagle bii mu ko jagal ci guddi gi. sëriñ bi jagle ko jagle bii mu ko jagal ci guddi gi. guddi gi kii sàkk guddi gi wax ni moo gën junni weer. ki sàkk guddi gi wax ci boppam ni moom moo gën junni weer. ngeen seetlu loolu bu baax. nee ngeen seetlu loolu bu nag bu baax a baax. maa ngi jégalu. mi ngi jégalu. di nuyu bokk yëpp. di nuyu bokk yëpp. di kilifa yi fi nekk. di nuyu. bokk julli yi fi nekk. taalibe yi fi nekk. bokki taalibe yi fi ne. maa ngi leen di jégalu. mi ngi leen di jégalu. ci war gi mu wax war a wax ay kaddu. ci war gi mu war a wax ay kaddu. yu wér ci soxna si. yu wér ci soxna si. waaye ngi jégalu nag tële gi mu ko tële. di nuyu ñëpp. di nuyu ñëpp. te seen jëf parce que da koo da koo laal daan na kon nag maa ngi leen di gën a soññaan nag ci liggéey lu lay lu xadar di leen xamal ne bis bi bisu Serigne Touba la lu ci waay def Serigne Touba lay fayal moom loolee mënu batale woon nag euh, yàlla dogal sëñ Moodu bi nga xamante ne moo ko fi nekkal ak soxna Bali te ñuy ñaan yàlla dolli seeni leer bu baax moom soxna si euh, na soxna may taxawe woon ak daayira bi ñoom dañ koo yokk lu ñu jox lu ñu soxna si joxoon muy benn ñoom def nañ ko muy fukk hmm. ba léegi nii rek ci kàddu yi mu mujjee wax rek loolu firnde la ci ndax dafa wax ne ku liggéey doomu Sëñ Tuubaa ba am jaajëfal noonu ngaa tekk sa laxasaay waaye teewul saa bu ne dañuy euh, feddaliwaat sama laxasaay loolee ci ñoom la ndax ñoom ñu soxna si bàyyi da euh, leen soxna si bàyyi woon dañ koo rafetal lool moo tax ñëpp sawar a ànd ñoom ci lool yàlla dogal nag ñëw bi ma ñëw maa ngi ànd ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor wàllu liggéey bi muy Serigne Ibrahima Lo mi nga xam ne moo jiite kuréel boobu xasida bi nga xam ne ñoom ñooy fanaan ci ak njàng bi ànd itam ak sëñ Alaaji Doxaane kenn ci kër gi di taalibu Serigne bi ak ak sëñ Khadim Ndiaye ak Serigne Mara Diop ak Serigne Maam Cheikh ñu ñëw nag teewal mbooloo mi yëpp ñëw gii ñu ñëw nag dañoo ñëw rek. ngir am ñoo xam ne dañ ko mu jëm ci wàllu bis bi waaye ñoom sax dañuy delluwaat ba àllarba ñu ànd mbooloo mi yëpp ñëw ndax liggéey bi ñoom ñoo ko war a taxaw muy mbokk yi seen ngeen sëriñ Mouhamadou Mahfous Mbacké xeewal li nga xam ne ñu ngi ñëw léegi ni ñu ko waxe woon sëriñ Sidi Baara Xol ku xamoon way juróom wa xam kër soxna May Muuna moo indi teraanga ji ci kanam sëriñ Mour Mahfous ngeen seen na nga xam ne ne la ko way juróom wu tedd wa doon def noonu la ko wéyale ci kanam way juróom wu tedd wi Serigne Modou Mahfous waaye way juróom wa alxaaji Serigne Thierno Xollu noonu la meloon ci soxna Maymuna moom mii nag mu mel noona na nga xam ne way juróom ya meloon nañ ko ci soxna Bali meloon ko ci soxna May meloon ko Serigne Cheikh Awa Balla mu ñëw na di fedd di wala réew ci Serigne Modou Mahfous gis ngeen teranga ji mu indi lépp nag Serigne baa ngi ko jëmale ci guddi Laylatul Qadr gi mbokk yi ñoo ko séenandoo nii waaw ah, bu ah, yi kon seen ngeen ko yaakaar naa teraanga jii ni mu toll ñetti nag yoo xam ne yëpp ñu ngi ko indi jox ko sëriñ Mourou Mahfouz mu jëm ci guddi Leylatul Qadr bi noo ko seen doon yi gis ngeen yi nga xam ne ñu ngi ci biir oto bi di génn ak ñaari yi joxe génn yëpp jëm ci boutique Leylatul Qadr bi fii ci kër Leylatul Qadr bi Touba Asalem waaw indi na ñetti nag ak eh, addee ju takku jox ko sëriñ Modou Mahfous seen ngeen jiléem yee ngeen di seen ak nag yi ne ci mi yëpp sëriñ bi jëmale ko ci guddig Laylatul Qadr gi incha allahu rabbul alamin